opera is over hours long. I don't know if, if I'm going to make it. And honestly, I'm just tired. now. Oh, sorry. oh, hey, Frank. Yeah, no, I got you. sant ngi ni ñu teg leen ci jàmm defal leen benn espace boo xam ne fi la ñuy toog couvrir seen événement ci jàmm ak salaam duñ leen lacrymo duñ leen wax dégage dëgg yàlla lii moo war nañ ci roy ku ne fii pour photographie la ñoo taxawal seen SL nii pour mën a jël photo yu baax xam naa dañuy gën a jege tuuti dem kër kër Donald Trump moo nekk nii ngeen di gis mooy Trump Tower nekk fii ci Five Avenue Manhattan. Oh, they're letting people walk in front. It's gone. It's 721 Fifth Avenue. voilà comme niñ leen ko waxee woon ñoo ngi Fifth Avenue kër Donald J Trump gannaaw convocation bi nga xam ne jot na ko ci procureur bi nga xam ne moo nekk Alvin Bragg di procureur bu Manhattan District Court Manhattan Court pour ay yenn tuuma yoo xam ne teg na ko ci kawam so that's nice. Let check some videos. voilà fii nag mooy kër Donald Trump nekk fii ci Fifth Avenue sant yi nag génn na ba dem xam naa dañuy dem ci beneen wàll gi pour am full leen fàttali ne Donald Trump dafa loué fii Gucci la ko loué location la da la ciy baax dajale koppar dëkk bi dafa metti moom da ngay def sa liggéey li mu la waree gis ngeen partie bi nga xam ne pour nga am ko version bu gudd gis ngeen partie bi nga xam ne fi lañu réservé journalistes yi ñoo nekk nii ku yor objectif bu baax moom di nga mën a def sa liggéey ni mu la waree. te nag transport en commun yi rek la ñu bàyyi ñu jàll ak yenn taxi yi wala oto yi nga xam ne am nañ droit jaar ci zone bi. Voilà.

Oh, six. Isn't that funny? Eu trabalhava com números, trabalhava com panita, tem? Idiote, idiote. Ai, but where's all the, but where's all the trouble? Because now I actually know. Oni nono vinham. Nono? di egsi dinañ koy am live waaw Trump numéro de moo nekk noonu mooy ñiy toppandoo Trump ñu Trump Trump lu mooy soog egsi nii moom nag day habillé wu comme Donald Trump di ay farandoom moo ngoog fake Trump kooku faux Trump bi la àndandoom bi la ñoom ñooy Trump Trump lu nday sànn ba tey di leen wax ne ñoo ngi Trump Tower jërë ngeen jëf mbokk yi mu nekkoon Seydina Aliou Ndiaye fii ci New York Trump Tower pour Senego TV jërë ngeen jëf